ndax foo teg Serigne Touba ci sa xol rek taalibe yi njukkal teg la fu raw ci seeni xol loolu moo tax mbooloo mu fonk mu ngi kon amul dara lu baax loo xam ne jomm na la Cheikh Ahmadou Kara ndax sa pas pas sag jubbanti sag jëmmal Serigne Touba ak sag wane Serigne Touba ci façon bu nekk ñu nga koy waxe ba ñëpp man cee ñëpp man cee jariñu ndax sëriñ bi la ko Cheikh Sidel Ba waxoon xéewal la ko sunu bor wàccee kon nag xéewal googu dañoo war a fexe ba mu tas ci biir àdduna ba kenn ku nekk mën a jariñu ci Serigne Touba bu ëllëgee ñëpp texe ndax moom ci boppam moo ne kat sunu borom nag ma def may njariñu nit ku ñuul di njariñ nit ku weex kon boo taxawee tey indi universalité Cheikh Ahmad Bamba foog naa ne dafa jot sëkk moo tax dañ lay sargal ci li nga def di la ci félicité di la xamal ne bunt la boo tijji boo xam ne sa maam moo la ko fi bàyyiloon ndax weesu nañ jamono joo xamante ne bii dañu nekk rek suñ biir naan Mbakke Buso Njaay Jóob rey ay nag lekk ceeb loolu jamono jooju weesu nañ Sëriñ Tuubaa fi mu àgg tey fu ne ci monde bi dañ ko faa war a dundal dañ ko faa war a dund kon nag loolu moom yow moom nga taxawal ngir jëmal ko ngir yaatal sëriñ bi ba ñëpp man cee jot kon na nga xam ne loolu ñun ñëpp ñu ngi ci sa ginnaaw bokk ak yow boobu pas-pas fas ku yéenee ànd ak yow di la ñaanal rek sa maam kattanal la sunu borom may la ak wér ba nga àggale ko li nga xamante ne bii noonu ko bëggee ànd ko ak mbooleem mbokki taalib yëpp mu jariñ yëpp di la aussi jot li nuyoo sa xarit président Macky Sall bi ma ñëw fi yëg na ma moom itam lii loolu aussi di lu am solo def mooy ni nga préfacé titre téere bi président yi jiitu yëpp kenn ku nekk bind ci loolu di wane Sénégal li nga xam ne noonu la nekk benn ak continuité bi nga xamante ne bii mooy am ci biir réew mi ñu koy joxalante ci anam goo xam ne anam gu rafet lay doon lépp nekk njariñul Sénégal kon foofu aussi dafa am grandeur ak boole ko fenwaat goo xamante ne bii. loolu lépp dafay wane rek yow sa sa tolluwaay sëriñ bi kon aussi ñu ngi lay jot li nuyoom mu ak muy fàttali kuréelam ci yow ak xaritam ci yow. pour en venir à l'ambassadeur de la Palestine excellence monsieur l'ambassadeur au nom de Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni nous vous pour votre présence en cette cérémonie qui réunit aujourd'hui une bonne partie de la communauté mouride. Et une cérémonie qui nous réunit pour parler de l'universalité de Cheikh Ahmadou Bamba. Comme vous le savez, Cheikh Ahmadou Bamba a beaucoup œuvré pour l'islam. Il a contribué à vivifier la sunna prophétique. Et en cela, nous le considérons comme le continuateur de la mission du prophète. Et vous le savez aussi bien que moi, l'islam est une religion universelle. Et le prophète est venu pour nous montrer la droiture pour que toute l'humanité puisse bénéficier des excellentes qualités de ces nobles que Dieu subhanahu wa ta'ala lui a attribué. Une universelle à l'image du, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à l'image donc de l'islam tout entier. Et c'est cela que Cheikh Ahmadou Kara remercier et nous sommes derrière vous pour le combat que vous menez pour la souveraineté, pour la libération du peuple palestinien à l'instar de toute la communauté musulmane. Merci beaucoup. jërëjëf ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. jërëjëf sëñ bi. Merci donc, cher Abdou je rappelle, il est ministre à la présidence de la République. Euh, ñu jox kàddu gi koo xamante ni Afrique da ko fonk gëm ko waxuma sax Sénégal puisque la puissance de sa poésie ça dépasse nos frontières koo xamante ni ki académie française daf ko gëm ba tax na ñu takkaloon ko benn raaya mi yëngu itam ci euh, poésie prophétique parce qu'il a produit un ouvrage poétique d'une dimension extraordinaire s'appelle le prophète wax ci lu yéeme wax ci lu yéeme manque naan numismatique bi ngay bind ci yonent bi mu benn rayon bu bëtt fenêtre am mel dañ koo jam ci xol mu jël xalima bi di wax ak xalima bi di en deux nekk une œuvre monumentale boo xamante ni bii boo demee ci àdduna bi dañ ko tekki en arabe anglais ak yeneen langues yi jamono yële wees jékki-jékki jékki mu envoyé ma benn taalif boo xam ne dama koy lire sama yaram di daw mu bind ko ci Cheikh Ahmadou Bamba Khadima Rasoul kooku mooy El Hadji Lamine Sall moom lay woon nii jox ko kàddu gi puisque moo produire ouvrage bi merci beaucoup